أسأل من تواضع وخشوع القلب Ceerno mhm. mbedd mam daan joxantoo mu bako di jaar mbedd mi jëm kër baabakan te bi ba bi Aysa tàggoo dem kër yaayam rasulullah yónneewu fa yónneewul dépense laaju ko naka sa yaram naaju ko lu xew dem ba mu yàgg xel mu dellu si mu xam ne erreur am na mbaa yëg nga ne léegi léeg nga dégg ñu ne diw ku dëggu la mhm. diw ko mën a wax dëgg la mën a wax dëgg baaxul dëggoo ko gën dëgg la xam nga luy dëgg mhm. fu la dëgg dabee nga taxaw léegi léeg nit de sëñ Babacar Si Mansour ak mën a wax dëgg mën a da nga koo léere du waxkatu dëgg dafa dëgg lu la wax ci dëgg bu ko dëgg ba tabee mu taxaw asgoor noonu lay mel wala mm-hmm. na bi day xëy di dox soo bëggee xam nu nabi daan doxee xool ma mamalaaji maa ne rek xam naa ko ñu ne bindal mu a yam si takka faaw naan wa taayilu man maasa wa in kaana mi man li tuwaali na mi sidi rasulullah ni la daan doxee <laughs> buñ la laajee Serigne si ku gën a niroog ku muy doxal ci kaw suuf ne Serigne Mansour borom daara yi. doxinu yonent bi la yor. wallaahi nabi buy dox day tumpang tumpang. yem si yàlla waaw naan. est-ce que sallallahu alayhi wa sallam. takafwa هولا هولا وهو طائل منه ما شاء ولو كان ممن لقي واصل الحديث علينا وصلي لا إله وجزي أنا أبا ينتبي عنا محمد المختار في القلب تينا تبي يمشي تكفوا أو وهو طائل من ما شاء ولو كان ممن لقي شيخ سيدي حاج مالك وصلي يا إلهي وجزيا أنا صدقت بعنا محمد المختار في القيلة سيدتي والكف ما ضرب الأنثى ولا ذكر ما خادما عاب من عيب ولا شخص العلم علينا والكف ما الكرامة قدسا ولا على ذكرا ما عاب من عيب الغلم محمد المصطفى والكف ما ضربت أنثى ولا ذكر ما خاب عاب من عيب الغلم شمس الحليم عليك والكف ما ضرب ضربت أنسا ولا ذكرا ما خادما عابا من عيب ولم يعلو أيمت بما كان منتقما للنفس محتجبا أما الطعام فلم يمدح من سيد الحي معلمة والكف ما ضربت قدسا ولا ولا ما خادما عابا من عيب ولم يلو جينا تبي وطاحن حالب وسعت متخذا موكيل خاصف نعلن ما حلف الملك والكف ما ضربت كل ولا ولا ذكرا ما خادما عابت من عيب الغلم التي يمشي تكفو أهوى هونا وهو قائل من ما شاء ولو كان بالمنلق وزير الحاج ملك والكف ما ضربت كل سنة ولا ذكر ما خان عيب ولا قيادا والقصر ما ضربت أنسا ولا ذكرا ما خاربا عاب من عيب ولم يولد Maodo yam si daan na dox moom na bi takkafu an muy aji temp mhm. waaye xaw nan doucement wallaahi ni ma doon doxee léegi noonu lay doxe ndànk lay dox te day temp bu wàccee tànk bi mbagg mi wàcc loolu mooy takkafu Thierno mhm. Seydou naam bu muy wàccee mu ànd ak moom xaw waaye wax wa taa ilu maasa ku mu doxaaleel moo lay sut Mm. waraw kaana donte dafa nekk muy doxaaleel nu muy di ku ñuy askani mi ne tiwaali ci séttax mm-hmm. mooy ku njool ba tega caw président Abdou Diouf président Abdou Diouf xam nga ko waaw bu àndoon na rasulaay rasulaay mën naa teg bool ci ko boppam di ci añ te duñu xam ti ko te rasulaay digg bi nit mooy wala in kaana mi walaw kaana mi man li tiwaali na mi muy doxantu buntu kër Babacar Sadiq bu rombee buntu kër gi dooma laaj lu muy def mm. asalaamaaleykum fa kayfa tiikum maa ngi leen di nuyu ana seen kooku ñu ne ko mu ngi ci jàmm ay sa ma fa sama kanam moytul jigéen du la jekku te mu wóor na bëgg nga ko du la jéggal ay sa xam ne ne sang bi juum na mm-hmm. te lim ko def ci biiri gor yi ñëpp tuumaal ko rasulilaay war koo couvrir ñu yàq xelam ba mu ñibbi kër yaayam ak ni mu ko seetaanee mu dem pendant six mois kenn faalewu ko ay sa ne lii maa koy fajal sama bopp moytul jigéen ju jéngu mu ne damay jéngu na waaye ma dafa baax Babacar Sadikh bis bu nekk ci jàkk ji lay julli te suba tàkkusaan timis gee ak suba teel bis mu ne moog yonent bi ñooy yenn Aysa ñëw na ci biir kër gi laaju ko looy wuti di ba mu demee ci yonent ne ko lu Aysa di wut lu tax mu ne nabee ni ku ma takk sama say ku ma takk yaay la ci julli ji te bëggumaa génn ci julli ji te man Babacar du ba lijjanti sama sëyu yaay li may jur jur xale bi kere bi ma koy nabi kere la say sama yaay nabee sama baay ay saay sama yaay yaay loo joteeg sama papa seen xuloo bi war ngeen a banak yaay lu tax nga fase sama papa man rasulaay du ma ko man ah Babacar ma ko def diggante ndey ak baay bu ñuy sëy bu ñu amee problème doom na taxawee nële ndax fekkeewul Babacar ku jox rasulaay xorma la pendant six mois rasulaay bu xëy rek romb asalaamaaleykum fa kay fatiikum ñu ne ko mu ngi ci jàmm Aysa nee na ma fas sama kanam faale ko te suba ka mu rombaat yoor yoor asalaamaaleykum fa kayfa tiikum ay sa nee na ma sama bët yi jigéen ñi bu ñu bëggee xool nañ lay bu ñu bëggee soir nii lañ lay def <laughs> noonu la ñuy xuloo yi ay sa nee na mën këj rasulaay xëy woote Aliyun mu ne ah Ousmane mu ne ah Babacar mu ne ah damaa bëgg ñu dem kër Babacar waxtaan lu ñuy waxtaanee mu ne problème mu Aïssa sama digganteeg mu ngi yàgg te kenn waxu ci xam nga lu ko Babacar wax rus naa ñuy ñëw sama kër di lijjanti coow nabi toogal ma buub sama waa kër ñu ñëw loo bëgg ñu def nabi nag kon maa leen di xaar ñëw ne Aïcha mu a mu ne ko sang bee woote mu ne ban sang rasulullah sangu kan xanaa yow mm, <laughs> waaye wax ma woon leneen neen papa lu mu wax mu ne nee na ñu dem këram arrangé mu ne demuma ku ma soxla na ma fekk fii ba may génn newu ma toogal bu soxlaa waxtaan na ñëw sama kër bàyyi laa ne ku mu ñëwul waxtaanu ma ñu ñëw wax ko rasulullaay mu ne wax nga dëgg maa ko soxla nañ dem Ali na ko da ngay na bi xale bii li mu la wax da ngay dem mu ne Ali mu ne ah mu ne boo demee damay dem boo demul dama dem te ku ma toppul dinaa génn ci yow ah mu ne ko nañ dem ñu <laughs> dagg bagage ñëw toog rasulullaay ku yeewu la nee naa la bi muy ñëw mu ngeen diwaale Seyna Bintu Jaas nee naa lu rasulullaay takk lu mu denc xaay saa ci gën a jekk moo ci gën a déggoo góor gi rasulullaay kër gi mu seere kër gu naqadee mm. ñi ci ne ku leen seere am coow Aïssa dafa jekk mën a sañ sa dëkkoog déggoog borom këram Zeynab bintu Jaxsi dafa rafet ba ku ko xool bëgg ko waaye Xafsatu bintu Abu bintu Umar ibnul Xataab daa mën a togg ba buy lekk doo toog doo taxaw ñett ñi ku leen dajale ci kër coow topp la. naa la wax lii. yonent bi woo Zeynab bintu Jaxsi mi gën a juboo rek Aïssa ne ko kaa ñu ànd mu ne lu ñuy wuti mu ne dañuy régler sama diggante ak Aïssa Zeynab bintu Jaxsi ne bu ma demul ñu ne damay wujjeeg moom te sama jëkkër la lu mu woo naa dem nañ dem kër Baye ñu ñëw dajale kër Rasulullah kër Seydina Abubakar ñu tëj bunt bi. Eh. ñu bismillah nabi na waaw sama diggante ak Aysa laa bëggoon ñu waxtaanee coow li yàgg na kenn waxu ci léegi nag ma doon laaj lu ngeen ci xalaat Aysa na nii. <laughs> na këj nabi na waxal yaa ko jur yaa ma ko may Babacar na genn kàddu laa am keroog ba ma la ko mayee lay sama yaay. du ma lijjanti sama sëy yaay wasalaam loolu laa ci xam defaroo leen ñu ne Omar ibn al-Khattab ci xam mu ne na bi delloo sil sa xel mi mu ne ah mu ne yaa fi toog digg bëccëg na ñang la ko mayee ci aras te yàlla du jël jigéen ju bon juy njaalu ci àll mu la koy may ku la wax loolu waxul dëgg jëlal sa jabar looluy dëgg mu ne ko Omar doo nit <laughs> yow mii yaa war a wax dellu njëkk a wax Omar njëkk a wax loo wax Ousmane ne ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi daanu xam ñu yeen yóbbu këram sotti ko dom mu ximmalu ko lu tax mu ne ni rasulullaay baax ni mu yiwee ni mu amee sutura di am problème ay soxnaam bañ koy dajale di ko àtte kerse googoo ma jàpp dee ma gën a dund oh. sama góor gi méritoowul lii saytaane bari doole oh. nañ ko yeggale waaye Ousmane du fekkee fu ñuy lijjantee sëyu rasulullaay maa am kersa tey góor gi méritoowul lii wute naag léegi de waaw lu ñu wax nag <laughs> ah, waaw du doon ngand <laughs> waaye waaye na na jëli jabaram ji dañuy dof dof rek góor ñi ku leen suqiwul ñu naaw Seydina Ali loo wax yi ne xam nga lu ma ci xam fase ko ñu ñibbi dafa réew hmm. lu tax mu ne kii xale bu tuuti la bàyyam yow rek la gëm ñu may la ko mu ne fi xool ni muy def boppam bi di ragaju nañ ñibbi Seydina Ali ne ko Ali mu ne ah, Seydina Mohamed Ali ndax mën ngaa génn néeg bi <laughs> maa la wax loo woon noppi laajatuma la Ali ne man de yaa ma laaj li xam laay wax ana mu ne maa ngi yal yaa teg koog moom yaa xam li ci moom sama diggante moom am na coow keroog ba muy ñëw dalaa indiwaale jaam la ñu may ma ko ma jox la ko nga ànd ak moom kenn gën laa xam Aïssa ma lay laaj loo xalaat mu ne man de leen laa xam ci sang bi mun naa ah, mu ne ko kii dalaa bëgg wekk la suturaal la ba bu lay toggal balaa togg day jàpp su hmm. toggee ba pare balaa ko yekk day sangu sangaayal farata rasulilah mun naa mun ne ko bu lay tegal ñam day sukk Sidi Mbaye jigéen buy tegal jëkkëram ñam sukk bu juree doom doom ja dañ koy sukkal yëguloo ne jigéen bu juree doom jëkk bu amee jëkkër di ko dox ndox sukk ci suuf hmm. bu juree doom doom ja day sox day faj soxla waaye booy jox ndox sa jëkkër ne ko ko ni nii mel mel ni pet lampe buy waaj a daanu sa doom day wër mbedd yi ba jant bi so benn soxla am du faju lu ñu am dañ ko koy may jigéen ñee tooñ seen doom yi mu ne ko bu lay tegal ñoom day sukk bu koy togg day yeesan yàpp balaa koo yekk day yeesan sang sangaay tëdd ci nag du fonk jëkkëram ba mu jaral ko lii te bu lay toggal kenn du ci teg bët li muy togg man mi mbindaan bi duma ci gis ndax respecté la kii ku la wax ne wor na la dalay nax ngeen baal ma man am mbindaan la maa ngi ci biti balaa maa dàq wasalaam yeggale leen. allahu rasulullah ne ana ana Seyna Bintu Jaxs mu ne ah mu ne ko kii kii sa wujj la da a jubóo di ba eh, Seydou. Eh, kaas bi bu fekkee Aïcha moo ko moom. Mhm. nga jaawale ko dugal ko nekk Seyna Bintu si Seyna Bintu Jaxs da koy sànni ca mbalit ma dootu ko xool. boolu Seyna Bintu Jaxsi bu duggee ne Aysa Aysa ne ca biti may ma rek ca biti ca biti may ma mu ne naa indi ki mu gën a juboo del ci kër gi ma laaj ko Seyna boo ah, loo xam ci sama diggante ak sama soxna mu ne ah nabi mu ne mu ne ñett laa ci xam maa alimtu minha ila al xayr allahu akbar xaw ma ci moom lu dul yiw allahu akbar mu ne mu ne ko xaw ma jigéen ju la gën a bëgg góor-góor naa ci topp ko ci bëggal ba bay wet bëttee mu ne mu ne ko xaw ma it ku ko gën a déggook yow man nag lu ma wax ñu ne wujji wala wasalaam man daal li ma gënal mooy delloo see sa xel ñu ne Aïssa waxal mu ne moom mi fi dajal nit ñu ne wax lu may wax du may wax du wax waxuma dara na wax yoo xam man sama yoon newu ci xool giit nabi na ginaa ba ma sante yàlla julli ci yonent bi léegi nag Aïssa ne may leen ma may leen ma ñu ne ah, mu ne xaw looy wax waaye nay dëgg wax ko nim demee na ko réel mbéj nabi nga naan nay dëgg nabi na bëreet bokk babakar na ko réel lu tax ngay sama jabar wax na dëgg du ma wax dëgg mm-hmm. ñu ne li jeex mm-hmm. ki ngay xeexal ñu di ko xeexal nga faf di ko xeexal juboo am na. wallaay dëgg la kon nañ ko jël aïssa tak bagage rasulaay njëkk yal na na ñibi ñu na ne Maodo lu ko may aïssa mu ne wa bintu sittin. xawal mu kaw bintu aïssa til wa bintu sittin سيد حوى aïssa til من قبله هجرته جيل من فلا تغي مولانا محمد أنا المختار في الأرض تنحول مختار عائشة ومن قبله ذكرته جيما فلا تغير مالكنا وصلي يا إلهي

زيان أبدا يا مهدا محمد محمدا المختار صبي ابن فرني وبنت سيد حوالى مختار عائشة عائشة من قبله هجرته

قبل النساء صدقة أولاده خرجوا منها سوى البدر إبراهيم غلوان وصلي يا إلهي وسيم أبدا أنا محمد أنا المختار صبي الغني جيوخ قبل النساء صدقا أولاد خرجوا من آسي والفتري إبراهيم ذلوا على جنة وصلي يا إلهي وانسيا وانسيا أبدا محمد صلى الله عليه وسلم المختار صلى الله عليه وسلم عائسة يا عائسة واو حالا و تبيم كوي دنتي عائسة بنت 60 خالة لا بو خاني موغي ام جيروم جيروم بن ات تي لنج كوكو ماي و بنت 60 اول مختار عائسة بيم كوكا اي ماي بان من قبل هجرتي لا تا الله دي غادا جيمان نيتي ات فلا تغيمي بول دف دف سما واخ واك رسول الله لوما واخ نيل بمكه عام اسراء عام عصرين fi sawaali bada taariqu mawlidihi fi daali min umami fan lañ ko ko mayee mu ne bi màkkata màkka lañ ko ko kan mu ne ama asrin ci atum fukkeel ma ci rasulaay bi ko yàlla yónni ban weer lañ ko ko may mu ne awa sawaali fi sawaali ci weeru digg waaw Aïssa kañ la gane àdduna mu ne taariqu mawlidiha boo bëggee xam date bi Aysa gane àdduna fit daali ma nga am ca ñeenteelu at min umam mi ci bi yàlla yónnee rasulullah bi ñu yónnee yónnent bi ba mu am 40 ba mu am ñetti ñeenti at la Aysa jud Ceerno kon Aysa ñaata la ko rasulullah mage 44 ans ah. la ko mage nabi 40 ans la am yàlla yónni mu teg ca 40 ans Aysa jud na ko 44 ans mooy at bi Cheikh al Mansour Laaji Mansour am aji màkk 1900 la gane àdduna 1944 mu gañe àdduna كاين لا كوكو جيبال خموكو مام لاج مال ني سيت بي كاين لا سي سي دي مام لاج مالي خمنا مامو سيرن باي منسو سي مودو مان مامو سيرن باي عبدو خمنا ني ني مام لاج مالي كاين لا من في تيبت عام اذا كان مبتنيا بعالها اسد العوام فرتسي كان نيك نمو يونتي مبتني ان موي ادي خرف ني جيبال كو سي في تيبا تا تيبا كاين من عام اذا عام عصر في تيبة عام إهدا تي بروميير كان مبتنيا bihaa ca ndaw sa laa aji nekk la di ñeel ndaw sa awaami fukki at bi Aysa di am fukki at lañ ko déggal ko fii taybatin ama ida kaana mubtaniyan bihaa laa asatul awaami fil tasim awaama baa in am na ñu ne déedéet ca ñaareelu at ma la ala qawli dayi fi laa moo da ne daa yor téere yi fekk ko ci waay wax ba wérul li ma la njëkk wax mooy première année ba te booba laa asra sinina wa nisun doona mutahim bu fekkee ca ñetteelu at ñaareelu ñaareelu at ba booba soxna si am na fukki at yu teg genn yu teg 6 mois ku xam li muy wax la mm-hmm. waaye alaaji Malick si radiyallahu taala anu bi rasulilah di génn àdduna Aysa ñaata at la am ak Aysa ñaata at la dund maam alaaji Malick xamoo ko mu ne xam naa ko man maamu Serigne Maodo si xam naa ko mm-hmm. waxaaba ana lahaa xayun bi aami xanin tuwafiyat umro isaaka fii wakami waxaaba génn àdduna loolu ngay wax anha bàyyi Aïssa waxa laxaa booba ñeel na Aïssa xayyun 18 ans bi góor gi génnaat na 18 ans la Aïssa am waxaaba anha laxaa xayyun kañ mu ne bi aami xanin bi muy génnaat na yonent bi 58 ans la génnaat la am bi yonent bi amee 58 ans la Aïssa génnaat bi aami xanin ci atum 58 la tuwafiyat umruhu isaaka fi wakami tuwafiyat génn na adduna bi aami xanin maanaam Aysa mu ngi génn adduna aama xanin bi yàlla yónni yónni ba mu am 58 ans la Aysa génn adduna bi Aysa di génn adduna ñaata at la am mu ne fii wakka min ci 66 ans la am génn adduna li ma soxla woon nag mooy bi ci des wa maa tazawwaja bikran wa maa tazawwaja bikran ghayraha wa إذا كان أحب بلا شك فلا تهمل وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا شكل فلا تعلمني وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا محمدنا المختار أي فقيهة وعد ورد قد روت من بعد ألفي حديث يا لم تصل وصلي يا إلهي وجدي أنا أبدا أتى أتت للبدر من لبن وجانب ذاك من راعها خذ أجمل وصلي يا إلهي وجزي أنا أبدا تركب عنا محمد المختار في القلم وما تزوج بكرا غيرها ولذا كانت أحب بلا شك ولا تهم الله أكبر إمام جبل samaam ne wama tazawaja mosta denc moom rasulullaay bikran jigéen joo xam ne ci njànk la ko fekk xayraha kurul yaay Aïsa walisa looloo waral kaana nekk na ahaba di gën a ëpp cofeel ci moom bila sakken ci lul ben sikki sak wala wala tu hami amul ben def dem mhm. jigéen mo sa den ci aisha ko ci gëna waye du ngeenelu alun jañak Seydou Nourou de deug mhm. la du ngeenelu jeng de dama laaj ban ngeenel la jigen ñep la yamale won bu ñewé buy séddale ci ëtt bi lay sédel su faré mu ne li ñep yam ku ne moom li ñep bokku ku ne jax la mhm. xol bi nak aisha ci nek lool ci mbirum yalla la allahu akbar xam nga luma soxla limay aisha lool mu ne mbaye nga ne imam jabel nit pour mu nek faqih day dégg luxa hmm, day dégg nuxa luxa day deg nahu day deg usul hmm. day deg bayan, hmm. day deg balaaxa do deg mantek, do ko mané nek nekk faqih mu ne faqihatun moy dajale na bim ci paré adda wardin xarrawar qabaran xarrawar soloo na ci hadis adda wardin xam nga ward mooy hadis hadis allahu akbar nga ne maamalaaji Malick hay sa coowam lu bari de fulem yëpp deux cent dix rek la mokkal ci hadis mu ne min baa di alfay hadis yi ginnaaw ñaari junni hadis ak ñaar téeméeri hadis ak juróomi ak fukki hadis yaay ay sa mokkal na ko Sidi Mbaye lijjantil foofu mm-hmm. ñan biñ ko koy may six la am yaa ngi dégg mm-hmm. dix-huit bi góor gi génn àdduna la am la génn la ay sa am da jël dix mooy ci six dimbale ma jàngkat yi. douze. douze ans la dund ak góor gi. Mhm. mokkal ñaari junni hadis ak ñaar téeméeri hadis ak fukki hadis te Babacar mii bàyyam mokkalu junni. allahu akbar. allahu yàlla mën a maye. wala déet. Mhm. Babacar mii bàyyam jur ko ci diine. Mhm. mokkalul junni yi mat yu tegaloo. te Aïssa mii doomam dund ak góor gi douze ans kese. te Babacar a njëkk a taxaw jébbalu ci ginnaaw rasulullah ginnaaw Xadija ak Alioune. ak Zayd ibnul Haarisa moo ñëw quatrième position ci ànd ak Rasulullah fu yonentu teg tànkam mu ànd ak moom du xaaru Hira du hijra du fenn fu mu am te Babacar ànd ak moom li mokkal matul junni ma ne la Aïssa mii doomam ànd ak góor gi douze ans kese ma ngay togg ma ngay fóot ma ngay bale ma ngay paase ma ngay root ma ngay defar mokkal na ñaari junni hadiis ak ñaar téeméeri hadiis ak fukk moo dina fatiha fatiha mu ne waxiyata ndaw soosu lam taximi du solo xadis bu dul wér xadis bu mu solo rek ci rasulullahi saxi sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi daaneel foofu sama kàddu nu mu nu mu mujjee bële aaya dafa wàcc setal ko daf ko wax kay والذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره والذي تولى mu yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo taxaw di sànni ay gor loo xam na du dëgg man yàlla may taxaw setal ko danaa dégg ci Serigne Maodo si mu ne benn histoire bu am ci saa si mi aaya wàcc ngir setal ko ay sa rek ko ko am dëgg la yàlla dem Seydou bay joxoñ yonent bi naan ko walaw laa isamitumoohu sannal muminuuna xayra mm. boo déglu woon ñiy yàq ndaw si xelam daram du yàqu mm-hmm. moo tax ko yàlla setal ngay set dëgg la bi loolu amee biñ coole ba ñu ñibbi ko këram ca suba sa yàlla yónni والذين جاءوا بالإفك عصبة منكم نيغا خامنا دانيو ديف كوريل بڬ تومال داوس نا لا تحسبوه شر لك بول جابنا ايلا بل هو خير لكم يولا الله اكبر ندخ كون تومال ku amul cër duñ la tuumaal. ku amul cër kenn du la xeeb. ku amul kenn du la desal ginnaaw. Mm-hmm. foo fekk borom cër dina am ñu taxaw pour gor ay tànkam. Mm-hmm. yàlla ne ay sa mun a mun a maa ngi lay encouragé man yàlla sa borom maa la setal te ko yàlla setal nga set. kon yàlla setal na ko ba mu set. wallaahi tey mu xëy te dëgg yonent bi. waaye li gën a yéeme mooy. Mm-hmm. keroog bi mu bi yonent bi génne àdduna. bi yonent bi génne àdduna. Mm. dañoo denc yonent bi. dañ koo sang ba pare sang ko teg ko ci buntu jàkk ji pour jullee ko coow li na fu ñu koy denc dooma jaay loo dooma laaj ku njëkk a wax uh-huh. si naa moo ne ñun dëkkuñ fi dañuy ñibbi dañoo ñëw rek rawale suñu diine am nañ doole nañ jël suñu néew ñibbi ñun waa Quraysh seen seen kër bàyyi mm, dellu màkk dellu màkk nañ jël suñu néew yeewu nañu wutal gërëm yi teg ci sama mag yi ñibbi Babacar na ko d'accord naa waaye bu ñu demee fu ñu koy denc mm. am ku ne Xadija ni mu meloon ci moom ku ko denc wetam mu jël am ñu ne déedéet lu ko mos a naqadi maqaama Ibrahima lay taxaw dañ dem ci wetu maqaama ñu denc ko ba kuy wër kaaba nga xam ne nabingo am ñu ne déedéet bi ko yàlla yónni maytul nañ ko yóbbu yi a bon ba mu xëy génnaat na ngeen jël ko lànk nañ na kur may ngeen ma may ngeen ma wax ñu ne amu ne yéen ñëpp gàngeen fi ngeen wax yëpp du fa dem ñu naa mu ne nabee wax ci xaddis ne maa du fi na nabiyul illaa ina billaahi am nabi du génn kenn ko denc loolu fa mu génnaat fii mu génnaat da ngeen a tardé bi gas naa ko fi ñu war a teg banque yi gas naa ko lal bi mu tëddoon ca dem daa yëkkati naa lal ba génnee naa ko dem leen gas bàmmeel bi te jullee góor gi denc ko ci néeg bi lañ koy denc eh, gàgganti na paay wala de waaye Seydou loolu ñoruma de denc nañ góor gi waaw soxna ñii ñibbi nañ seen kër yaay ñi wuti nañ appartement Aïssa na ñibbi wu ma sama kër yaay wuti ma appartement hmm. Babacar na ko nañ dem mun a dewu ma lu tax mun a demandé sama borom kër mu feebar tànn ma dëkk ak man génn àdduna may ñibbi fi mu daan tëdd laay tëdd fan ci néeg bi mu a waa bàmmeel mu ne waa après fii laay tëdd mu ñu denc góor gi mu jël basan benn côté bi mu teg ci bagaasam jël basan gi lal ko ci diggante ci bunt bi di tëdd di dend ak rasulillah sallallahu alayhi moo wax ne ku ma a góor gi génnaat na waxoo dëgg mu ne ah mu ne damay tëdd bëgg di may dégg voix sallallahu alayhi mel ni kuy nelaw di jañeer mu ne Aysa mu ne ah mu ne bu subaa diw dina fi ñëw mhm. bu la waxee li tontu ko li bu la ñaanloo li jàngal li aajo faju mhm. mu ne damay nelaw bëgg di ma ëlbatiku sama loxo bi tege ci kaw bàmmeel may sentir karawu dënd mi ni ma ko doon sentir bi muy dënd kon kii ku ne génnaat na waxoo dëgg mhm. sama góor gi daa làq waay dem mawtu taqiyu xayaatu laa nafaada lahu xat maata qawmun wahum fi sirri ahbaab buur yàlla bu la gënee wan ginnaaw rek koo keroon la la gën a mën waaye loolu ñoruma xam nga lu ma ñor Babacar génn àdduna di bàyyam ñu ne fuñ koy denc mu ne may naa ko ñu denc ko fi ma doon tëdd ñu xaaj bay ko waaye attention sama baay jàmbaar la gëm na sang bi saanies nay ni isuma fil xaari ida qoli saabi laa taxsan ina laa maana yàgg naa ànd ak moom am ndam waaye buñ ko dencee seen ñaari dënn yi tolloo suuf gëq Babacar lu tax mu ne dara ji ji rasulaay am ku ñu ko tëral nga dend doog moom yàlla suuf si gëq la sama baay am na cër ci yàlla waaye nañ jël boppam mu tollook tolloog ndiggu rasulilaay ñu boole ko cercle waaye boppam bu boot bu tolloog bopp rasulilaay anwaar ak tajaliyaat lay jógee ca àddara di daanu ci giir rasulilaay ci dënnam bu laalee sama baay suuf gëq eh, nii lañ dencee rasulilaay dooma laaj ana baabaka mm. nii lañ ko dencee ci ginnaaw dëgg la Hmm. nabee nga nale boo demee madine di siara fii ngay toog loolu dëgg la yaa ngi ci dënnu rasul soo paree puusal yaa ci dënnu baaba dëgg la ay créé Omar ñu jam ko mu xam na day dee mu bindu nag Aysa ne ko sa néeg des na benn ruq dooma may ma tëdd sama ñaari sang yi ya. oh. mu ne ko benn place fi desoon sama bopp laa ko baal cekelafa, ni nga meloon ak sama baay ak mu wóol la toog la ci gi duma la ko kañ xay ñi denc mu ne su ngeen bi mu sama baay moom i suuf gëkk lu mu ne wax ne ما طلعت شمس ولا القمر برجل خير من عمر بن الخطاب وعمر الخطاب حسنة من حسنات أبو بكر دقلة جبت مصة فيك كملني عمر تنباخ ويلي عمر تنباخ باخ بني يولا تنباخ بابكر درجة جي عمر جي رسول الله ببون تولو الله دن مك رسول الله سوف جكوكو سوف ينجلي دن بابكر متولو دن عمر عمر سوف جكوكو الله هنا فين كاي دنتي جخمو بيوان amu bi doon mu ne gas leen ñu gas bu ko tij bu ko tij ñu gas mu ne nañ teko ma rasulullah yi ñuy dëgg Babacar a ngi nii te doomar a ngi loolu dëgg la ay sàkkere loolu mm. ñu naa mu ne teg leen miir bi ñu teg pavillon mm. mu ne ku isi yaa toogal fii yaa ngi ci dënnu rasulullah soo paree puusal yaa ngi ci dënnu Omar si yàlla nangu sa siyaar waaye buñ ko defee nii ñaar ñi suuf ñi leleen ñu am waaw lu wér صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك جرجف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا علي ما شاء الله آه، حاج سيد النور والله كونتان جرجف واي دينا ان شاء الله بيان الجمعه بي دي فاندري بروشين يلا نفي يلا باي ان شاء الله اللهم سيدنا علي تامبالي ني تي يونت يالله محمد موم دا تاي دوج تي يونت علي جيل سا صلى الله عليه وسلم تامبالي واخ اي جيكوم wax kan mooy rasulullah. tem laa bindoon wallaahi waaye nag teg fa tem ba di wax ah, déedéet waxoo leneen déedéet. Eh. wallaahi wax nga loo xam ne jëriñ na ñëpp. inna fi zalika la dikra man kaana lahu qalbun aw alqa sam'ahu wa shahid sama portable moo déchargé. waaw dafa déchargé waaye dama. xaw na tàkk na. waaw pour ñu andilaat ma ko. waaw mu am tuuti. amoon naa ci. xolal ma téléphone imam Jabel bi. 109000. 109000. am na lu ñu la envoyé yow it. incha allah cent mille. incha allahu taala. est-ce que sallallahu alayhi euh, sëñ Sidi dina jël kàddu léegi waaye ñu gërëm Seydina Ali ci daara ji. wallaay wallaay daara Cheikh El Hadj daara la bu am daa. ndax maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu daa iman dama koy wax Thierno Saïd Nourou waxoon sa turandoo. waaw ni Allahu huwa allazi tawalla taalimahu. mun Cheikh El Hadj Malick yàllaa ko jàngal mi ngi mm-hmm. jóge ci école yàlla. Mm-hmm. ndax wattaqullaha wa yuallimukum yuallimukumullah yàlla mu ni su ngeen ma ragalee man yàlla ma jàngal leen moo tax démb suñu invité bi di Omar Ndoye junj na lu mel noonu waaw Oustaz Omar Ndoye ba muy lim ci ba muy leeral ci diggante lawxul mahfuzu suxra ak lawxul mahfuzul kubra xam nga lawxul mahfuzu suxra mooy lawxul mahfuz bi alquran di tudd lawxul mahfuz bu ndaw bi la dëgg la innahu la quranun karim fi lawxin mahfuzun lawxul mahfuz boobu lawxul mahfuz bu ndaw la موي ايتا جينيرو سونو برم واو لوخو المحفوظ بو ماغ بي موي دند محمد صلى الله عليه وسلم موتا شيخ الحاج مالك تي صلوات يمو دفتي تيسير نسلي على لوحك المحفوظ اوكي اشرف من كل الخلائق يا رحمن الله يا الله يلا يلا نغا جولي تي لوخو المحفوظ كون يونت يالله محمد الله دو محمد حافظ واو شيخ محمد الحافظ بو خليفه بي بو خليفه سيرن بابا كاسي منصور نينغ كوي نيو مو اه لول دي الله تبارك الله مو الله اكبر def ko au parleur salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mi ngi wooteel. dafa coupé wooteel wooteel fa tabaarakallah kon loolu. dafay wane ni. njabootu Cheikh El Hadj Malick pour nga wax ci. faw nga am leer. mbaa kon góor gi seetaan ñu. ah kañ laa chak. laa chak fii. dugal ngeen ma de. donc loolu. déedéet seen ali. dugal ngeen ma de daara ñëpp kontaan nañ. ñëpp kontaan wax nga xam-xam. bégal nga nit ñi waaye li ma neex ci Seydina Ali. waaw. moy pédagogie bi na ci moom surtout surtout dina fexe ba xam nga dafa am je me rappelle ba ñuy nekk université ñëwal na ñëw bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh maa ngi leen di ziar bu baax waaw kañ jërëjëf yaay ay desi maa ngi ci plateau bi di seetaan. jazaakal jazaakillahu xeeran yaay booy. jërëjëf si si Malick li ma li ma tax wax nag. waaw. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw alhamdulilah. ndax ñun dañu juddu rek fekk suñu maam Seydou Hadj Malick wax li mu wax si Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Aliou Diagne ñëw tey ji waaw. nekk ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. su génnoon feneen. wala mu def leneen. ñëpp danañ ci ànd ak moom. waaw ndax fu mu jaar rek. Seydina Muhammad moo tax ñu sàkk mhm. jarul nag ma di ci wax arab wala ma di ci wax li ma jàng wala ma di ci wax li ma xam dëgg la si ko wax ci wolof ñëpp xam dëgg la ñu ngi ñaanal mhm. Malikia jërëjëf si jërëjëf ñaanal yàlla yéen ñi fi ne jërëjëf si yàlla na leen yàlla sàmm amin ya rabbal alamin ci barke nabil Mustafa sallallahu alayhi amin si yàlla defal leen sutura amin amin rabbi yokk leen ba ngeen gën a yëkkati amin ya rabbi si amin maa ngi nuyu nag sama doom su ma maa ngi nuyu sama doom jamono xam na ko wallahi muy Maxtaar Njaay al waaw waaye Aliou Aliou moom Aliou Diagne waaw yàlla na ko yàlla fay. amiin amiin amiin amiin. ci doom yi. dend takk Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa muy Sidi Ahmed Mbaye. waaw moom it mm-hmm. yàlla na yàlla fay. wallah ma ko waate yow tamit ñu ngi lay ñaanal yàlla ah, wér ak gudd fan. amiin si ñu bokk ko incha allah. waaw lii sax daa du sama affaire. ah kañ si moom kañ tey kontaan nañu. mën na ma ko. wallaay si waaye Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. ma la ko mhm. te nga bokk ci njabootu Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu war nga sukk ci suuf dëgg la war nga bëdëngu mhm. war nga raam ndax ku la may ku la abal bët wallahi la te ñun Seydina Muhammad sallallahu yàlla moom la ñu am wallahi wallahi si mhm. maam maam se maam Seydil Hadj ma bokk koog ñëpp alhamdulilah si li mu wax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ak i nawleem yu ma ko bokkal mm-hmm. ñoom ñëpp ñu wax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. moom bosom bii waxuma dara waaye xilaas bi rek bi mu ko bindee ak waxtu yu mu ko bindee ak waxtu yi mu ci wax lépp àllin ji ak ci ko toog wallaahi di ko wax di wax ay waxam ba yàlla defal ko ci sutura mu dugg ci nii ba wax li mu hmm. war a wax yépp te hmm. juumul hmm. wala bu juumee dégg gu ma ko bokk ndax maa ngi toog sànq ba tey waaye dégg gu ma alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf kon daal yéen seen télé bi yàlla bu benn juum waaye yàlla bu seen bés amiin ya rabbil alamin si barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin amiin sama xol a tooy nag wallaay kontaan nañ ci sa dugg bi rëy na ci ñun yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah moog sëtam bu baax boobu waaw شيخ سيدي احمد تيجاني شريف رضي الله عنه والله شقنا لين والله والله يعني يعمل سواء مك بسلم بابا كرسي محمد المنصر الله اكبر الخليفه من يب نينكو زيار ياي ديكو جار لتيو سيد الحاج مالك واو bu bu ko tuddee tudd ñooñ suñu ñun ñëpp tudd naa wallaay wallaay si wallaay si yàlla na ko yàlla may wér amin si amin si bépp njabootu Seydil Hadj amin si amin yaay yaay booy ñi ngi ziar xalifa bi sëñ Babacar si Mansour jaarale ko ci yow ñi ngi ñaan nga jotalal ñu ko nee ko ñi ngi koy sop di ko ñaanal si incha allahu taala déedéet bàjjan yaa moom jotaay bi si yaa moom lépp kontaan nañ lii encouragement la ci ñun jërëjëf si amin amin si amin Alioune Alioune waaw mi ngi lay dégg mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar am na am na ci loo xam ne nag du ma ko jéggal saa yu gisee rek danaa ko wax moom waaw waaw ne baax na incha allah incha allah si eh, baal ma rek dama jërëjëf damaa juum rek te bari wax baal ma ko rek jërëjëf jërëjëf bàjjan kooku mooy soxna bàjjan Aïda Sy ah, bu Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh soxna Aïda Sy di doomu Cheikh Al Hadj Abdoulaye Sy Dabakh waaye di suñu yaayu daara nekk ak ci suñu xalifa bi <laughs> muy Serigne Babacar Sy Mansour quartier bi mu ne mhm. ñu ngi ko dippee Cheikh na Ahmed Tidiane moom mooy chef de quartier bi moo ko ko tuddee moom moom Sidi Mbaye nee na fa dëkk bu fekkee dañuy wax ci Seydil Hadji Malick muy wax ci yonte yàlla Mouhamed deret Seydil Hadji Malick dugg Seydou lii encouragement la waaye fa mu jóge moo ñu neex muy mooy kër xalifa ba jàppal nag ni moom mi woote sëñ Babacar Sy Mansour a woote wallaay dëgg la ndax moo nekk ak sëñ Babacar Sy Mansour kon lii nag rëy na ci Malikia. la mu waxoon ni Malikia ca kaw ca kanam. Mhm. incha allahu taala loolu kontaan nañ ci. Mhm. Seydou Nourou ñu delloo la kaddu gi incha allah. jërëjëf Imaam Jabel euh, li ma naan ñoom yàgg nañ dinu nu sagal. Mhm. ci sagal ñu la nu euh, xam nga sànq dangeen ko fi wax yow ak euh, Abdoul Aziz. Fall. maanaam nga nekk ak sa taalibe. bu xewlee du la gis. xamoo fu mu dëkk. xamaloo ko dara. kon euh, sëriñ boobu man naa seetaat. waaye ñii sant si moom. foo leen soxlaa gis leen gàcce ngaalaam dëgg la keroog mu laay euh, sëriñ mu laay si. Mm-hmm. moom sëriñ Habib gis ngeen bi mu fi wootee. Mm-hmm. daaw Pape Maodo woote na fi. Mm-hmm. Euh, neem it donc tout le temps maa ngi fàttaliku. sa quartier général ba ba xalifa xalifa bi wootee. ba nga wàccee xam nga da nga toogoon nga wàcce suuf. boobu ma ne fekk maa ngi toog sama kaw lal ma ne ma wàcc lal bi toog suuf. yàlla xam na ko guddi googu. ñëpp tiit. guddi googu c'était voilà donc loolu yëpp euh, sant yàlla la comme ni mu koy waxee rek ñoom si sagal nu leen dëkk donc euh, si Malick ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar. Mm-hmm. di comme ni nga ko waxee rek ñu jaar xalifa bi bu baax a baax. Mm-hmm. di ko jaarale ci moom. Mm-hmm. Euh, Imam Jabel. Mm-hmm. Euh, guddi gi tey gi daal nekkaat ne geneen ci biir guddi gu spécial goo xamante ne euh, macha allah bokk na ci li nga xamante ne dinañ ko nettali. di nuyu njabootu xalifa bi yëpp yëpp nag waaye rawatina nag suñu xarit suñu soppee Serigne Habib bu xalifa bi. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Serigne Moustapha fàttewuñ ko. ak Mouhamed Hafiz mi ñoom ñëpp ñu leen nuyu bu baax a baax di leen ziar Imam Jabel. guddi gi daal alhamdulilah. Euh, wax dëgg yàlla lii moom réy na ci ñun. wallaay wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, ndax kaddu bu jógee ci le xalif général des Tidiane. Mhm. te damay wax ni télé bi tere xalifa bi la. wallaay moom Serigne Babacar Sy Mansour lépp lu ñuy def ñi ngi koy def taxt taxt riayati mhm. wa atul buyuta min abwabiha moo tax daa iman lu ñuy ubbi. ci turam lañ koy ubbee. kontaan nañu. بيك نيو واي مختان جال امي نيت والله ميريتي نلو مل ميريت لا باسكو لي ليب لا عبدي اذا لم يشكر من اجريت النعمه على يدي كون دا لي ديلو كاد بي سي سيدي نا خانا ديغي بيغل ولا ني تيت شيخنا لا شك da koy bëgg la chèque ñu ñu jox oustaz alin Diagne balaa ñu jox mu bëggal euh, euh, soxna Alioune Diagne waaw am na fi cent treize mille macha allah am na ñoo ñu am na koo xam ne un franc la yónnee wallaay ndeysaan waaye du ko xeeb du ko xeeb du lu tuuti de wallaay du lu tuuti yonent bi la ko jox de sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw am na ñoo xam ne ay mille francs cinq cent dix francs am na ko xam ne un franc macha allah waaw kamasali xabbatin anbatat sabaa sanabil fii kulli sumbulatin miatu xabba yéene bi waaw du ko rëccu yéene bi Oustaz Alioune waaw lan ngay tàggatoo waaw xanaa bégati mbégte mu rëy Alioune ndax yëg nga ni àdduna bi yëpp kontaan nañ ñëpp kontaan waaw man man dama fee waxul dara man la ma bëggoon a waxtaane waxtaane wu ma ko damaa maf ñaandu guddi gi ndax dama xool gis ne li ci des bariwul ma ne naa ko def rek yëfu saalum saalum maf ñaandu ko dem waaye ala kulli xaalin béggati nañu. alhamdulilah béggati nañ ci sunu yaay ju baax ji woote. moom yaay la bàjjan la. maam la. yaayu daara la. te loolu ku ko jege xam ko ci moom. dafa njaboote ñëpp. waaye engagé wu nag ci xalifa bi dégg nga li mu wax. Mhm. sama mag. waxul sama borom kër. kilifa dégg nga wax sama mag man dama ko dégg sama dënn rëcc waaw ah, kon jàppewu ko borom kër déedéet mm, mm, magam dafa engagé wu comme mm, magam di ko jàppale allahu akbar dama def mos a toog ak sama pap Mansour bu maam Abdou mm-hmm. mu soxna yi yàlla may ñuy sëy ci biir kër gi mm-hmm. buñ jàppee ne sëyu yaama neex la wala sëyu nobante dañuy nax seen bopp mu ne kër Seydi Hadji Malick sëyu tarbiya la mm-hmm. ku fi yàlla dugal dala fee dugal pour nga tarbiya mu ne kuy tarbiya nag daa am lu la neex daa am lu la naqadi daa déggu la neex waaye daa déggu la naqadi waaye soo boolee lépp yàlla fay la ko moom mi ci jigéen ñooñu la ko yàlla boole sànq ngay wax ci Seydatuna Aïcha waaw Seydatuna Aïcha si dugg dugg mu ngoog ñu tuddee ko naa Aïcha bu Seydil xaaji Malick muy soxna Aïda si mhm. bi ñu joxoon sëñ Haadi Maam Alaaji Maalik tuddee ko Sayyidatuna Aysa muy turandoo. yal na ko yàlla yéegi. amiin yéeg na ca yéeg na ca parce que jikko jikko yi ma doon wax. ci mm. yaay Aysa mu ànd ko Rasulilaay. moom noonu la àndee xalifa bi. Mm. engagement total. man nag yàllaa ma defal sutura xalifa bi lu mu jaboote sama xarit la. Mm. yàllaa ma booleeg ñaw muy sëñ Habib Aliou da nga baax na. waa de muy muy sëñ Moustapha mm-hmm. muy Sidi Ahmed waaye rawatina doomam Mouhamadul Amin maak moom benn lañu duñu réeroo fa may fa mu ne xam na li may wax waa te loolu yëpp ci seen bàyyi la damay wax ma ne Tiwaawan boo dajee xale ñu ne noo sant mu ne si mu def tànk neen di yàlwaan bul laaj doomu sëñ Babacar Mansour la hmm? maa la ko Soxna Ayda mi laajal Soxna Ayda day togg ceebu ndar ndar bu neex teg ko booba njaga fëri ñu ngi doog a ubbi biti bi ci buntu kër gi ñoom Abdou Diak ñëpp fa la ñuy ñoom Cheikh Mohamed yi Mam dem yalwani asalem ci talibé duñ ci ñëmé duggal seen loxo allahu akbar ñu nak ñom Serigne Cheikh Moustapha mu may dégg biñu joggé waan face ñew biñu ñuy ñew a ñoo daan bokk ben néeg di toggu gosi diko lek lekk te seen dépense bay mu ngi fi bu ga mu jotee ko gis mu sant ci sa toolaaju mal di yenu do mu sëñ Babacar Mansour te te sank ci biir waxam dafa wax wax bu yéme dafa ni sunu mam ñun ñëpp ñu sunu maam ñun ñëpp ñu bokk wax sama mam man déedéet sëñ Babacar Mansour tarbiya mo yéme noonu la ko yàlla may yàllaa ko may mu mën a tarbiya nit oh, sëñ Babacar Sy Abdou sama sëriñ mu ne bi mu hmm. ñibbisee mokkal alxuraan mag ñëpp da ko ne sëriñ ñibbisi nga mu ne waaw mu ne ci lan mu ne ñibbisi mu ne ci lan mu ne xanaa ñibbisi mu ne waxuma lool ci lan mu ne xanaa ñëw mu ne ko fii sa kër maam la boo fi jaayee judd wala xam-xam doo fi jëlee dara la nga jàngee Fuuta ak Alaaji Abdoy sama maam ngay simmi def sa bopp taalibi boo liggéey ku jëriñu nga jëriñu ku jëriñuwul nga jëriñu waaye lu mu waxoon seigne baaw kër semence lu mu la wax la benn bis tok na gam mutama sikki mu al Amin li ma la yàgg na xale la mu ngi ci wetu bayam diko xeyal diko gontal bu ëllëgee nak bu yilifee ñëpp bu mu naqadi ken mom day wax tout court mu jeex ci digg lu la jay li lay jëriñ la lay wax daga ci responsabilité bo gisee sumay wax di so dama ma sox ben wax ñi jabulise wax ji am fuñ ko yobbu ma xeyra mu ma ñew mu ne ma nga na nga Sénégal nga li nga wax lu tax nga wax ko ñu waxtaan ci mu ne ma bu mu amati maanaam li nga wax dalay woo waxtaan ceeg yow ne la lii bu mu am del waxee nii bul defee nii moo tax su may wax dama koy suur kilifa gu mel noonu ci maqaama ci daraja ci wilaaya ci maandu ci ragal yàlla allahuma laa adru boo dee lu tuuti tekku wa dara mu lay bàyyi xel ba boo juumee mu orienté la foo war a wax na nga toog nga defar sa tool. xalifa bi te kaaralam. te teg kaaralam. waaw ndax ni miig. waaw si billahi yaa bari ngor. musu yaa yenu yen bi te wonkoo. billahi sakku woo ku la aw. mën nañ ko te jàmbatoo ndax na miig wallahi yaa bari ngor. yaa yenu yen bi. waaw te wonkoo. sàkk woo ku la aw. te jàmbatoo ndax ni miig. billaahi yaa bari ngor. خليفة الشيخ والمختار يا فتمة يا فجر من أيدان تجيب واجب للدكم كمل ورانا سسوخة نوح xam ni siir mu dee xajjit mu teex mu dingal xalifatas awaaw cheikhi wal muxtaar yaa fi dimbal awaaw si fajal dina ay daanante ñepp la waji si nga lam وجهاد العشر كم كم دكمي هناك سيف نصفم دلقور نتخر خليفة الشيخ والمختار يا فكر يا فجر لنا أين سن بابا كرجوه yaa tasuloo yaa karike Bubakar jawogale tasuloo yaa karike Bubakar jawogale tasuloo yaa karike Bubakar jawogale tasuloo yaa karike القوس كل ريب رين أصحاب الرسول شلو خليفة الشيخ شيخ والمختار يا خطب الرافي فجر لحيت أنا تجيب وجدت سنة باكو بالأملاح موكا يا يوم تباك كوبيل أمداه موكايا وادي توس لتباك كوبيل أمداه موكايا يوردان ساتيجاني تدسي بيتو مودي بودي برومي وادي من اللبزيتي مجيد من كامل وادي ووافل wajib ku matama ki sabar bu muy kamal ja te bu muy bi'as bu muy jarabet bu muy kitab te bu muy fan fanile li war ku len ko xinal ku sopp sa Babakar bu len ko xinal xalifa dafay tere baleen ci nit ñi baleen mamboo di way way ko si ar musafaxi la xalifa bay musafaxi la wàññi bési tëgi rekk yow mi dati ba ku sabar ati xagi إنه ممرك من ميتك جهر ديدان ودي ديدان ودي كيركم ما تفرفر لنجمي كنت فردورس تكر دولار فرلت بي كنت فردورس تكر دولار فرلت بي كنت فردورس رشدك ندل أكرم به إنه حقا حقا خير وسر يا الله أين في طيل وحمدك نعمكم أيوة كل الخلود كل الرماية دين دين الله بيناتهم تم تيدك jërëjëf kon yaa yenu yen bi te woon ko sàkk woo ku la aw te jàmbatee ndax na miig wallahi yaa bari ngom si di jërëjëf xam nga lu may firndeelee lool mm. dafa am sunu yaay ju baax ñu di ko ajaratu tànt Jóob talaata bi mu gane àdduna bi mu dellusee la Maodo faatu mm. Adja Tante Diop. moo ma ne keroog Serigne Cheikh Tidiane Cheikh maa Mansour bi ñu leen di yóbbu sëñ ñuy dali jàng laax bi ñu ndekkee soxna asukan man la ko sant maa ko togg. allahu akbar mu doon sëyeeg góor gi aman ñang awa caam. aman ñang awa caam ak maam Alaaji Mansour moo suñ tàqali ko sëñ Babacar si yar ko mais mën Mansour jël ko may ko taalibeem bu muy àndal mu yaru ci kër gi xam lu bare mu ne ma sëñ Babacar si dafa toog ak sëriñ Jóoba Jóob ñu waxtaanam ba mu yàgg ñu ne ko ah Serigne bi jaaxle lañ de mu ne ah mu ko ci yow lañ xamee ne. nit boo ko tuddee nit mu jël ci moom juróom-ñaari jikko mu ne luy loolu ñu ne ko mën Mansoor xale bi mu la tuddee ñu baal ma ci waxu xale bi ma wax fukki atam matagul mais fulla ci ci moom ak personnalité bi la ñu xam ne ku tuddee nit tur mu jël ci moom dina jël ci moom juróom-ñaari jikko sëñ kër na dënn ba mu yàgg mu ne aha moom de dafa mel ni wolof daa juum ñu ne ah mu ne nitu ordinaire ngay tuddee nit mu jël ci moom juróom-ñaari waaye waaye ku jubóog yàlla te muy dëgg boo ko tuddee nit te muy dëgg jikko yëpp lay jël te alaaji mën soo tuddee gi ma ko tuddee dëgg la te yeesuma ci góoru yàlla yi xale boobu su màggee ñëpp xam ne Babacar si dellu si allahu loolu bi ñu ma koy wax xale laa man onze ans laa am ñu wax ma ko mu ne sama bopp ba tey ku xool xam ne suñ Babacar si dellu si dëgg la déet eh, ku xool xam ne alaaji mën soo dellu si maam alaaji mën soo benn doom bu góor rek la am ak soxna Faat si muy jigéen mais be mina rijaali rajulun hmm. ka alfin hmm. waaye wa min wa min alfin ka uf hmm. dégg nga wax bi min al rijaali rajulun ka alfin waaw wa min wa minhum alfun ka uffin daa fekk fukki góor mënu ñoo wecce benn góor benn góor di wecce junni góor maa la wax lii foofu la yàlla na bokk ci yàlla na fi yàgg te c'est simple ah, pour mu yàgg fi ah. mën naa leen benn secret ñun ñii fi toog kenn ku ne rek yaay warlu ne sama dund yàlla na ma ci yàlla wàññil ñetti at ñu boole ñetti ñetti yooyu jox ko ko rek muy 40 ans mu toog fekk buñ ko warloo rek ci barke la yàlla man de war naa sama bopp parce que war nañu koo jaral moom ak rakkam ji si moom ak sama sëriñ sama soppe sëñ Babacar si am te yi mu am jumaa ji yëpp ay mot yëpp lay yeggale rawatina jumaa rawatina jumaa ji na ko yàlla fay su ko defee maa ngi daaneel foofu di jéggul xam nga li ci gën a neex sànq li nga wax waaw cest à ñoom ba démb laa koy démb démb ou tey je plus en tout cas yàggul daal tay la ci waxtan ak nit. Mm-hmm. ñuy waxtan ci waxu émission ci télé ni nii. ma ne ko attention. Tivaouane bàyyi ñu kenn mu nekk ci télé di wax lu ko neex. deug la ku ci wax luñ la santul. Mm-hmm. nekk fa di wax Maodo di waxal Maodo lu mu deful. Mm-hmm. dañ la woné la eh. mala ko wax mala wax ni donc lolu day firndeel li nga doon wax c'est-à-dire bàyyiwuñ ñu rek ñu nekk ci télé di wax. lu ñu neex mais dañoo surveiller de près. juste pour préserver li nga xamante ne gis nga li wax dama koy bind. macha allah li waaw. xam nga ne lii mënuma ci gàmm mm-hmm. dama koy noté sëñ Babacar Mansour moo ma ko mosaw ma di ko nuyu ci guy gi muy waaxu mu ne ma li ngay wax ñaar laa sant ñett kon looy fooy dem na amal ndigalu sëñ Baye Abdou mm-hmm. fu mu la yebal bu fa dem mm-hmm. looy wax noté ko bul dem fenn te ñu la jox tax demal ngir yàlla tant yi dara newu ci coonoo ci ne waaye demee ngir yàlla boo demee ngir yàlla yàlla faj sa soxla feneen te ñi lay woo ci tant yi duñ ko yëg moom lu mu la wax téere la du la jay hmm. yàlla na fi yàgg soxna Ayda nag ñu ndokkeel ko moom it sagalataat sagalaat nañu waaye bàjjan balaa ñoo gisee baal ma bu fekkee dama <laughs> am naa lu ma foog ne moom la doomu ndar dafaa féex dafa fiir. ah te moom dafa mën a togg mbaadu loolu la. te yow fiiroo yow ñëpp nga yaatu. Ah. waaye nag mën ngaa togg moom. allah daal moom moom xam naa ne sa ceeb ku ko lekk. Ah. beneen ceeb dootu waaye ba ca ah, des jéggal ma ko si Malick. di si jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp. jërëjëf Guèye nuyuwaat ñuy déglu ñëpp. jërëjëf rawatina sunu baay Cheikh Al Hadj Malick si Maodo. Mm-hmm. di ko si ziyaara. Mm-hmm. ak soxnaam soxna yaay Safi. Mm-hmm. ñoom fu ñu toll ñu ngi ñuy encouragé di ñu seetaan. di nuyu nag mbooleem njabootu xalifa bi. waaye rawatina sunu yaay soxna Lalla Ñang soxna nday mariam si ak mbollem wa dara ja ñu ngi siara ñep di ndokkeel ñep su amé yaq suñu gatt alli wala ta man damay wax ne kuma conférence lo wala gamulo ma yàqu nga mm. ndax dama am ñetti feebar kuma dem wax <laughs> ben feebar bi moy mokkaluma ben haraf ñaar bi moo di dama dama ñaka fasa ñettel bi dama ragal nit ay way <laughs> ma ñaar ñett polé ma jaxaso ba duma xam lu may moo tax wax jere mënta neex jërëjëf zani verset yalla nang ko def téeméeri at allahumma amin amin incha allah ànd ak sag yow it sag nga ci sa kër maam amin amin incha allah ci yéen la ñu xamee ne ak ku baax baax wallaay seen maam si rajo Malick jayut keneen nit ku dul mhm. sama wax a bëgg a bari dañoo bay ca jag saaw ca ca ca ca ca jaar njaarnde mag ñëpp mu ne ah rëg rëg ji lan la jabe yaa ngi may dégg lay deg ñëpp na patt mu ne ma ne rëg ji lu xew mm. sunu maam laa jarawaat na ko si Malick kanaa yàlla rek wut yàlla rek mhm. mu ne ah, yàlla dafee ne ñu ne ah si moom lañ yaakaar mu ne Malick de gisagu ko fu mu ko gisee dina leen ko wan waaye yéen it bu leen ma trahir na ngeen ma dimbale ba ku ko njëkk gis na ko wan Malick mhm. kooku jayul kenn allahu akbar Maalaji rawaat na ko si da ngaa baax rek. Mhm. waaye ñun ñii sax ba ñu wane yàlla yàgg na. mu ne ah, Maalik de du jay ket. leen ko wan yàlla mm-hmm. waaye yéen lu ngeen gis ci leen ma. Mm-hmm. modeste boobu nag mooy continuer ci këram ba ilaa yow mi naa aada. duñ la wan daraja duñ la wan maqaama. Mm-hmm. dañuy seen bopp. ànd ak yow mel ni ñoo bokk ak yow ak ndey ak baay. loolu mooy li soxna si wane tey te keneen ku woote loolu lay def. kon maa ngi jégalu ñëpp. jërëjëf amul benn problème alors dañuy dañuy fàttali ñaari numéro yi pour ñi nga xamante ne peut-être dégguñu ko woon sànq euh, pour addiye yi Nous euh, mën ko rapidement. Mm-hmm. Euh, yow yow lañuy jox euh, yu bosu. 163 000. numéro bi 77 77. 578. 578. 03. 03. 34. 34. c'est mon numéro. 578. 03 03 34. adieu pour Oussas Alune Diagne. Mm-hmm. Alors alors Sidi. ce mm-hmm. ce numéro. 563. 563. 99 90 alors lolo moy numéro Sidi Mbaye Sidi Mbaye yooyu encore une fois merci beaucoup de nañu nañu daan kontaan Euh joyeux anniversaire Abdoul Aziz MBC Yoy joyeux anniversaire Yena bokku beaucoup bis yoy ñu ngi lay souhaiter un très heureux anniversaire Goudou fan ak Wirgu yaram ñu ngi la koy souhaiter bu euh, baax baax naam Sidi di jël waaw suba waaw dama am conférence waaw Fi ci Juma Sacré Cœur waaw bu imam Moussa Fall. waaw waaw imam Moussa Fall. waaw di surtout Seydi Hadji Malick. Mhm. c'était Ali Bouli Fall. wallaay moom sama promotionnaire la. ok ñoo defandoo université première année ba maîtrise. d'accord euh, mu muy ku baax. ndeysaan. Euh, même gàmmu pap Pape Mansour bu maam Abdou. moom mooy mooy modéré. mooy modérateur ñu ngi koy nuyu ku baax sama xarit. ak dëgg la mu ngi consul Arabie Saoudite. Mhm. ok maa ngi ñaan nag. Mhm. comme waaw ma fekk fo ca consul wax dëgg yàlla. yàlla dina ko def ah. yàlla dina ko def imaam ci barke dina ko def ma liggéeyal sama ah, am njaatige dina fa fekk dina am dina fa fekk incha allah dina am dina am léegi moom conférence bi waaw bu mag lay def sacrifice ci buntu jumaa ji waaw mu woo ma ni ma imam mhm. euh, comme maa ngi consulat ba waaw euh, représenté fa affaires étrangères waaw wuutuma ci conférence bi suba ma war ko ko defal conférence bi nag ñi ngi ko tuddee mhm. Cerno Muntag euh, Cerno Habibu Taal. Cerno Habibu Taal. men na. waaw te génn àdduna. Cerno Habibu Muntaga. Muntaga waaw Cerno Habibu Muntaga bu Louga. Cerno Habibu Muntaga waaw. moom la ñu dippee conférence bi suba. incha allah moom lañ ko parrainé. ma koy def man ak professeur Cheikh Ahmed Tidiane Kébé. incha allah ñooy def conférence bi suba. incha allah ci Sacré Cœur ñu ngi ciy invité ñëpp. d' accord incha allahu taala. d' accord mu ngoog kon boog ñu ngi ciy woo njabootu Thierno Mountaga yëpp. Alsane Ciss woote na ca Paris bu Pape Moulay. mu ngi woote Alsane Ciss ca Paris mu ngi leen di nuyu. d' accord Pape Ndiaye bi daan ànd ak ñii di woy ca Fass. waaw waaw mu ngi seetaan mu ngi nuyu ñëpp tamit maa ngi jégalu waaw. d' accord euh, Zeyna Almakhtoum tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, soppe Almakhtoum la euh, foofu ci diwaanu parcelle Euh, alors, il y a quelqu'un qui me demande, waouh, nous numéro numéro euh, numéro hmm. euh, pour Alun Diagne Qui est 1000 francs 77. 77 578. 578. 03. 03. 34. 34 578 03 34. qui yónnee na 500 francs. qui allah kii na 263 francs. yalla yalla barkeel waaw tabaarakallah. mu alors euh, joyeux anniversaire à Soxna Astoukan Kane Mbaye. Euh, di di rakk ci suba la anniversaire am. ñu koy souhaiter joyeux anniversaire bu baax a baax. kii yónnee na 10 euh, 000 francs 98 Diaw la sant. allah na 10 000 ci orange money bi. d' accord allah. Mm. mu ngoog Imam Diabel alors Sidi yow euh, ñu bayilé rek euh, ci cadeau yi ñu ngi waaj le 27 inshallah euh, non dañ koy def dañuy d'abord le 13. bésu ngañ bàyyi. incha allah buñ ci noppé nak le 27 mais comme que tay wa soppe Sidi Ahmed baye ñofi dajé mhm. on va parler du 27 inshallah fofu foofu ci diwaanu waagu ñaay ci esplanade bu Serigne Babacar simansou à partir de 17h.

di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samay ñaari waajur waaye nag waaw di gërëm jàmbaar ji maam Cheikh Seydil Hadji Malick rabbi allah ñun ku nu xool ba teral nu ba yëkkati sa alal jox nu mhm. du ñun kon li ma leen waxoon fàttewu leen ko. déedéet gars yi bëgguñu leen de. xam nga Maodo la si baal ma maa ngi nuyu Mouhamed Moustapha Niang ca Mbour. ak soxnaam waaw mu ngi ñuy seetaan sa soppe sa xarit. nee na mu lay ndokkale ñu ngi koy ziar Mouhamed Moustapha Niang bu Serigne Baye Abdou. moom yenn saa ma tooñ leen ne leen gars yi bëgguñu leen de. wallaay dëgg la bëgguñu nu. gars yi yonente bi lañ bëgg. sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Malick lañ bëgg. mooy dëgg Cheikh Ahmed Tidiane lañ bëgg. wallaay dëgg la bëgguñu nu de. Ah. ndax liggéeyaguñ fi lu nu bëggee. waaye nag. sagam ñu ngi kontaan ci loolu di di gis loolu ci yéen mhm. Ah, ah gàcce nga la ma yéen alhamdulilah macha allah. moom daal barki démb benn waaye dafa ma envoyé message. Ah, ah. ni ma xaw ma waa Mbayeen ñoo mën a way. waaw fekk mu dagg benn xilaas bi ñu doon way fii ci Malikia TV. ndeysaan muy Aminatul Bintu Wahbin bi. waaw mu dagg ko envoyé ma ko. ni ma xaw ma waa kër maam Moussa ñoo mën a way. wala wala maam Sidaaj Malick moo mën a bind. ma ne ko Sidaaj Malick moo mën a bind. wallaay moo mën a bind. bind moo neex. Ibrahima xamu dara. te li muy bindi tabaarakallaahu ci sayyiduna Muhammad merci beaucoup bu nu ko tàqamti ko mu dugg ci xol yi. merci beaucoup jërëjëf ñii nag ñooy soppee Sidi Mbaye yi. Ah, waaw soppee Sidi Mbaye ndeysaan ñoo andi gàtt yi Maodo Maodo traiteur aussi daf la indil cadeau Maodo indil cadeau bi Maodo macha allah. Ah, weeru ko gi moo ñu indil fi ay reer. macha allah indi na gâteau indi gâteau. Maodo jël leen Maodo xaaral Maodo moom maa koy accueillir. ah Maodo macha allah. Maodo maa koy accueillir jërëjëf jërëjëf xaaral xaaral ñu jël la grand. ah macha allah Maodo traiteur Maodo.

يلا يالا فاي مولو خم نغي كو باخ كو باخ يالنا يالا تخاو لا يالنا يالا سام لا ما شاء الله يالنا نغي جيم تي كاو تي كان تي بارك سيدي حاج مالك ربي الله يا ني وندي بارك الله ميرسي بوكو مولو موم